bu dee seen yitte yëpp paasewul fexe ba ndékki am ci kër gi añ am fa reer am fa bu guddee ku ne am foo tëdd fa la yem nañu xam ni kon kër ga paasewul hôtel mais relation ti nga ko séqal lu mu yëg nga yëg ko fu mu jëm nga jëm fa xamuloo ni fi ne saxaar boo ko laajoon lu la booleeg safara xamul luy safara xamu ko saxaar yëgul ni safara am na billaay loolu yéeme saxaar yëgul ni safara am na safara yëgul ni saxaar am na kenn yëgu ci sa morom te ñooy ànd bien que mak ni lélé ñu indi lu reelu sax dañu laaj saxar ñu ko lutax bu tak taka mais toujours yaay njëkk a génn mu ah, bu xesee ba génn ñu faté ma moo tax may jëkkantu génn la mo génn waaye bu ma bu xasse ba génn rek ma paré ca waxin la mais boo laajee safara yëgul ni saxaar am na boo laajee saxaar yëgul ni safara am na sunna bi leen amal di leen manipuler ba ñu ànd boobu rek am solo kooku sunna yàlla la mais bu dee ci nit du tegu noonu waaw ah, mooy baat bañ leen wax démb ci tëngéej gis nga laa ilaha illallah kenn mësul gis loolu ku ci ne li nga moom yàlla tudd na la individuellement ku ne li nga moom yàlla tudd na la individuellement fa lamma taxachaha taxacha góor gee ko moom haaji jigéen see ko moom xamalat mu wax jigéen gi bàyyi góor gi xamlan xafifan fa marrat bihi fa lamma asqalat yépp ci jigéen gi lay wax de waaye fa lamma asqalat ah la des nag ñoo ko bokk daawa allah rabbahuma daawa allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin am na lu nga xam ne buñ koy yéene di ko ñaan di ko nimsa ñu ko seq ñoo ko war a bokk parce que bu baaxee ñoom la baaxal mais bu bonee ñoom la bonal ba ci mission xam na ne am mbokk kot doy na baax na waaye boo demee ba mbokk mi nga am ci deret nag yàlla defaat ko muy sa mbokk ci mission am na looy soxla yàlla def ko haarunu axi هارون أخي لأشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا wa nadkuraka kasira ndax innaka kunta bina basira ba ci nga am sa nit am sa collaborateur ngeen am lu ngeen bokk noon jóg jëm ci moom nga toog di ko seetaan ndax jëf jëf ni ci moom la jëm te xamuloo ni buy pare ci moom yaa cay teg alam aqul lakuma inna shaytaana lakuma aduwu mubin waaw moo ci sóoru rek naka ca des taxaw parce que luy yàqu ñoom ñëpp lay yàqul yàlla nag ci waxinu alquran nee du yéen a wax ni wuute xalaat doj na mbañeel wuute xalaat doy na mbañeel wuute jikko doy na mbañeel yu na wax يلا نانا كون منو لين ما فاي كون نك واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كم دوي ووت خلات دوينا مبانيال ووت جيكو دوينا مبانيال يالا نينا بو مالين باي يون يم نيب نين دي نون كون نك من مي اورينتي سيني خلات باموي بن ma yar seeni jikko ba muy benn di amati ci seen diggante jaadootul waaw ta mbagnel mu ngi commencé ci garal alquran na wax mbagnel mu ngi commencé ci garal kon nak wala tanabuzu bil alqab ba tax am na baat nañ koy seetaat salaatul jamaa ñu ni julli mbooloo ñun bari nëkku ne dem ci jàkka ji julli julli mbooloo te yàlla moo xam ni du julli mbooloo julli daje na ngeen ci bàyyi xel bari na ku ni dem ca jàkka ja julli julli mbooloo te yàlla nanguwul mu nekk julli mbooloo jullik daje la parce que ñu daje te ña fa daje kenn ku ne rusuloo tuur sa deretu moroom ñu daje te ña fa daje كن روسي كي تقل سدر مروم نيو داجي تا نيا فا داجي كن روسي كي لاتال سا على لو مروم بو نيو اندي جوليت نيو تود جوليك مبولو مي جاب دا كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله moo tax bu malaaka yi ne yàlla ñu dem ca mbooloo ma mu ni ban billaay malaaka yi mu daan yebal bu julli mbooloo gu mu gu wir amee mu yabal leen kenn ku ne mu taf la ci wetu gémmi ñu jullit malaaka bu ne sa nopp ak julli jullit xaraf bu mu yàq bala ko malaaka jël nga defar xaraf ba bu demee ba mu wóor ko ne nag jullik daje la bu malaaka yi tàggoon ni ñu dem ci julli mbooloo mu ni ñan ñu ni julli mbooloo ma mu ni taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta ah waaw ana mbooloo mbooloo new fa dajee fa am malaaka yi jommi ndax ñoom defa nañ ni regroupement bi rek la or que regroupement bi esprit bi mooy farata bi nga gis nit alquran dégg ko farata la واعتصموا بحبل الله جميعا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى واعتصموا بحبل الله جميعا تتاول جروبسكل عمل te yàlla d'accord bu tudd ko waaw yàlla ni waatasimu bi xablillahi jamian yéen ñëpp ànd leen jàpp ci lenn li bennoo et pourtant ci biir bennoo googu ay groupuscule génn yàlla d'accord ba tudd groupuscule yi C'est tellement important Moi, lay am na xamal ne am na loo xam ne du jëmmi acte bi mais li bootu ci acte bi moo yitteel yàlla والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يلا مين ونعتصم بحبل الله جميعاً wëlbati ko am ñu mu génne ay groupe yu muy génne di leen di leen tagg génne ay groupe moom mi ni nekk leen benn kon moom moo waroon wane ni soxlawul di di ràññetle mais yàlla ràññet la ne ba tudd lil fuqaraa al muhaajiriin alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan ولا ولينصرن الله من ينصره ها وينصرون الله ورسوله اولئك هم المؤمنون حقا لوتال موتو دلين نونو باسكو بوبو كريتير يي مو تودو ييب دا فا رانفورسي جميعا لو جرا سيتلو لا دا فا خاو كومبليكي yàlla bu dee tudd ñi gàddaay di leen tagg ci alquran naan ma ma ma sopp ñëlewaay ñi ñu génne seeni kër nangu seene alal jàppale yàlla ak jaral leen ko ndax ñu am ngëneel am ngërëm am ngëneelu yonent bi am ngërëmu yàlla yàlla nee na maa leen sopp groupuscule boobu ñu tudde ay gaday kat sen gaday dafa renforcer ci jami'an am ji daf ko renforcer parce que li ñu bokk mo len jaral ñu gedd kër gedd alal gedd yi ci dess yépp pour renforcer jami'an am ji الأنصار تدن لهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويأمن waajal nañu seen pas-pas yi ci seen xol ya sellal nañu di nim sa rek seen bokk yu néewle teer si ca ñoom ba ñu yàkkaw liku leen boole leen ci seen bopp mu ne am na lu nga xam ne ku ci tës bakkan yàlla mu ne kon nag ñooñu ñuy tudd al ansar ñu jël seen lépp waajal ko ndax yàkkawliku ña bàyyi seen kër ak seen alal buñ ko defee pour renforcer jamian ji moo mais bu yemoon foofu kon ñi bokkul ci muhajirina bokkuñu ci al ansaar nu ñuy def waaye walladina jaawu min baadihim aha yaquluuna rabbana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم yàlla ne waaye bu ma tuddee muhajirin ak ansaar da nga fay mel ni falayam ويكونيوتي تباس باس بيتاغوتي تباس باسو مهاجرين ولا تباس باس تاغوتي باس باسو الانصار تي نيوم دون يو بو بابا ньо خامني مان مي تيرو مهاجرين اي الانصاري mën naa leen jaar ak ñoom it fa ma jaar ak ñële loolooy tax l'islam bi muy laaj beneen façon maanaa li ñoo tudde an nizaam baatu organisation alquran bu dee tudd nizaam ruuxu nizaam moo tax waaye haykalu nizaam taxu esprit d'organisation moo tax l'islam di wax mais schéma taxul d'accord nag du ñu xeeb ñu war a daje fii ci tente bi organisation ñëw defar tànt bi niñ ko war a defee ba mu jekk mu yiir nit ñi ba naaj wi du leen sonal kenn du ko xeeb baax na jëkk na waaye ruuxu nidaam moo ëpp doole te mooy li fi dajale nit ñi kenn ku ne esprit bi la animé ban esprit la parce que li de Malik, si, c'est tellement important Maodo Nena, na rafet rafetu kurus de Verde. di werd Maodo Malick nee rafetu T'as taxul di rafetuk nangu motax tidian di werd waaw ليس تزي صفحة يعتبر بل اتباع ما الشيوخ أخبروا كون رفتك نانغو موي واخجي

قطع وما كان المؤمنون لينفروا كفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولن def lu jóg rek parce que lu ñëpp bokk mu yaatu ba yegg fenn fi bu ñëpp bëggee ku ne def la bëggee mu sotti du ni sottee kon na am ñu nekk ay volontaire seen pas-pas mët ko seen jom mët ko seen dogu mët ko seen muñ mët ko waaw itam li yàlla waxoon yonent bi ni ko lal basang ak maye ndox tuubeen doy na ca lu am solo la waaw lal basang ak maye ndox tuubeen doy na ca siqaayatul xaaj ak imaratul masjidil haram tuubeen doy na ca mais loolu rek yorul diine waaw moo tax nag organisation faible la Faire mu et ak fee jotteli cela ne veut pas dire ni buñ une organisation rek dañ une sous commission de l'organisation Il képp ku bok ci yef yi esprit organisation bi concerné na la motax nak ñetti lu jar a bàyyi xel la bala nga jëm ci organisation parce que ci esprit bi la bokk bu jëkk bi mooy man istaajala shay'a qabla awaanihi uqiba bi xirmaani lépp lu jotagul nga bëgg koo def ba waxtu wa jotee nga ñàkk ko lépp lu waxtoom jotul ba nga def ko bu waxtoom jotee nga ñàkk ko moo tax précipitation mbaaxul bala ngay sonn ci def dara xaaral ba xam ndax waxtoom jot na walla déet waaye loo yàkkamti rekk boo ko defee bu waxtu wa jotee mën naa am la ñu ci soxla woon dootuñu ko ca mën a am kooku nag ñépp la concerné ñun tout le monde nettali naa leen ko ci seen góor gu tedd gi mu nettali ni ci bi fatxu Makka li tax mu demee ni mu demee mooy ci bi dafa précipité moo jàpp datam mais yàlla jàppul dat ne na jàpp gi mu jàpp dat nag te yàlla du ko seetaan moo tax yàlla moom bàyyi la mu nekkoon ñëw jàppale si ko ba nangu fatxu Makka gi waaye nee na ba waroon na dépassé noonu bu fekkoon ne datu yàlla la ñuy jàpp lu yéeme la ba ci des mooy la mu wax ni la xew fatxu Makka du foofa lañ ko réglé ca Xudaybiya lañ ko réglé

maanaam ku bëgg jàppandoo jaar yu bare ah bootul jaar yëpp rëccandoo am nga ñu bari ñuy nekk ci kër gu mag xëy seen lépp yàqu looloo koy def ndax bëgg ku ne ku ne bëkk